bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ci di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi soxna Asta Buri Mbàkke mi ñu fekk si tey moom sëñ Moustapha Basir moom xa moom moom moom Xaadimu Rasuul fekk Seex Abdoulahat Jaxate ànd ak mbooloo mi nga xam ne si ñooy liggéeyal daara yi ci bis bi nga xam ne moom la ñuy war a daje fële ca kër sëñ Tuubaa gi ca Daaru Marnaan Sambe ñu fas yéene ànd ak mbooloo mu takku daje fa ñuy woo ndeyu daara yëpp ci kàddu soxna Astou Boury ak Cheikh Abdou Lahad Diakhaté kon auzu billaahi mina seytaani mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa Bachir mi fi toogal sëriñ Touba ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare di ko ñaanal yàlla sama borom guddal aw fanam wéral ay ciram ba li mu yéene ci dëkku sëñ Tuubaa bi mu egg ca di nuyu sunu kilifa ci di turu soxna Asuburi Mbàkke mi jiite nday daara yi ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare di ko ñaanal moom itam li mu yéene ci dëkku maamam bi yal na yàlla may ko wér ak fan wu ba mu eggale ko soxna Asuburi nag ku ko xam ku ne xam ni alxuraan rek a ko ñor ñoñ alxuraan rek a ko ñoñ ñor ndax lépp loo xam ne lu baax la soxna si dugal na ca loxoom bu dee ci ndey daara yi moo jiite ndey daara yi bu fekkente ni poroxaan la ku ne xam na soxna asuburi Pastef bi mu am ci poroxaan ak li mu jiite ci poroxaan ak li muy daj ci poroxaan kon ñoo ngi koy ñaanal lépp lu mu yéene ci bisub dëkkub sëñ Touba bi yal na ko ci yàlla eggale ba lépp lu kawe njortam li mu ci séentu yal na ci jot lu kawe njortam lu gën a kawe njortam te mu ànd kook julit yi di nuyu nag mboolem kudib jullit kudib murit kudib taalibe turu soxna Astou Boury Mbacké kàddu yi nag du kàddu yi lenn lu dul kàddu soññee suñu bis bi nga xam ne dañ koo dëgmal muy la 11 janvier ndey daara yi di ko def social bu mag ci kër sëñ tuubaaga ñu di ci woo nag mboolem koo xam ne yaa ngi yëngu ci social amul mag amul ndaw ku dib jullit képp kuy xeetu Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi lay woo ci suñu bis bi ñu dëgmal ndax dara ñuruñu lu dul bis bi te bis bi bisub alxuraan la di bisub social di bis boo xamante ni li ñu ciy def dañ koy dencal ëllëg rek yàlla rek moo tax ñu di ko def ñu ni ciy woot yàlla rek moo tax ñu di leen ci woo ñu bëgg nag képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu tur suñu euh, woote bii mooy sa mooy sa carte invitation yemale wuñu ko Touba rek yemale wuñu ko ci réew mi lan ko yemale mbooleem àdduna Afrique mboolem foo xamante ni suñu kàddu yi egg na fa ñoo ngi leen woo ci social bi képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci social boo ñu woo téléphone dinañ la wax fi ngay jaar ba ñëw bokk ci social bi nu bokk liggéey jàppale alxuraan kuréel bi kuréel la boo xamante ni dañu ko sos ngir liggéeyal daara jàppale alxuraan jàppale sëriñ daara yi kon mboolem koo xam ne rek yaa ngi dégg sunu kàddu yi ñoo ngi la ci woo ngeen ñëw ci ahlul xidmat nga xam ne dafa lëkkale junniy daara ak juróomi téeméer yoo xamante ni jigéen ñi dañuy liggéeyal daara yi ñii ngi ci bool yi di tibal donga yi ñii ngi fóot póot póotal donga yi ñii ngi leen di mm, cotiser ay cotisation xam yoo xamante ni amul benn solo waaye mbooloo moom mooy doole kenn xeebu ci dara bëgg nañ leen a wutal ay machine fóot bëgg nañ leen koo xam ne man ngaa jàppe machine fóot te yàlla tax te alxuraan tax nga ñëw lebal alxuraan ñun de fayunu leen sëriñ daara bi fayu leen donga bi fayu leen yàlla mi nga xam ne moo wàcc alxuraan moo leen di fay ak Serigne Touba mi nga xam ne moom lañ ko sosal ci dëkkam bi bu fay dee am moo leen di fay ñun amuñu fay te yal na yàlla boole nu pay ga bu boobaa te balaa neex nag di ëllëg fa nga xam ne fa la ñu jëm ëllëg te foofee mooy kër dëgg gi fii moom dañ fee ganes rek ab kaso la ñu indi nu fi rek dañ ñu fi defe naa kër gee mooy gën a yàgg mooy gën a neex te ku fa képp koo xamante ni yóbbu nga fa lu lay lu koy neexal doo ko réccu kon noo ngi leen di woo di woo julit yëpp ñu ñëw jàppale nu ci liggéeyal alxuraan ndax bu ëllëgee benn julit du mer bu ëllëgee bu ñun nuy fay boole nu ko nun ñëpp fay nu ko loolu daal laa amoon lu ma leen di wax ah di sant ñëpp di woo ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi soxna Maguette Gueye la Touba Jéemoon. auzu billah bismillah inna wala yàlla ma tawfiq illa billah laa hawla wala quwwata illa billah. ñu ngi ñaan sëñ Mountakha Bachir suñu borom yàgg ko te wéral ko ñu ngi nuyu baax son soxna Aïssatou Buri Mbacke mu sëñ Moustapha Bachir di nuyu suñu jawriñ Cheikh Abdou Lahat di nuyu kuréel Ahlu Xidma gépp di woo jullit ñëpp nag ci bis bu mag bu ñuy amal muy bis social alxames la 11 janvier 2024 ci résidence Cheikhoul Khadim Daaru Manaan di woo. di woo jullit ñëpp ne bàyyiwoon kenn suñ tuddee jawriñ yi ahlu xidma mel ne tudd nañ ñëpp soxna Dior Cissé ak soxna Fat Diaw forage Baylaat soxna na Silla Guédé soxna Mati Silla Badaat soxna soxna Oumy Ndiaye Sam soxna Tayratu Jaxate Sam Jaxate ak soxna Ami Wadd soxna Fama Ngeer Arafat soxna Jaan Touré Jaanatul Mahwa soxna Maami Fall Daaru Minam Bayal Ba soxna Ndey Mbub Daaru Minam Bayal Ba soxna Oumy Gueye Bayal Ba soxna Ndey Fall Daaru Minam un euh, soxna Toora Ndiaye Soura soxna Nogay Diop ak soxna Ñaan Fay Riyad soxna Marème Marème Diagne Xayra Mami Ngoone Samb Daaru Minam soxna Ami Samb Tambacounda soxna Busa Jaxate Daaru Daaru Xudos 3 Njare soxna Binta Sarr Jàkke Sëñ Mahmadan soxna Mami Ngoone bayal ba soxna Saynabu Lo Moflisina 30 ba soxna Moyi Mbàkke Massa Jeeba 30 ba soxna Ndey Njaay bayal ba soxna Buso Jóob forage yoon daaru soxna Mee Ilipor soxna Faali Jeey soxna Awaley daaru Karim soxna Baali Sekk daaru forage soxna soxna Faati Jeey Bay Faal Jàmmageen Looyeen soxna Ndey Faal asilem soxna Faat Jabaay asilem 2 soxna Ami Jóob soxna Oumy Diop ak soxna Maguette Gueye jéemul soxna Fati soxna Fati Kane Diop jéemul soxna Diallo Wade forage soxna Aïda soxna Aïda Ciss Daaru Minam soxna Kouma Daaru Fat Gojo soxna Fati Gaye Lipor ak soxna Amilo Dieng Daaru Minam di woo mbooleem kuréelu ndeyu daara yëpp ñu leen di woo di woo soxna soxna Fat Ndiaye Naar Isbia soxna Oumy Aliya maam Fatou Dieng ak maam Fatou Diop jànnatul fii daw si soxna Fama Dieng Ndiané doo mm, bàyyi daara yëpp ci njiital sëñ Modou Xaalim Mbuub ku ci bëgg ay leer incha allah ci bis boobu nga woo ci numéro bi 76 887 vingt 24 ñu ngi woo julli ñëpp di woo ci bis boobu di woo kuréel yi nga xam ne ñoo nekk Touba yëpp mu jigéen mbootaay yi ak balay borom balay yi ak euh, borom daayira yi di Massokas ñu ngi woo commerçant yëpp di woo taxi di woo borom sere di bàyyiwun kenn di woo waa santé soxna Maguette Diop jéemul moom mi nga xam ne ku mën a jàppale dongo yi la moom ñu ngi koy woo. ñu ngi woo kuréel nekk Touba la ñëpp ñu jàpp ci bis boobu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna waliyallah ñu ngi leen di nuyu. di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa mu Seex Ahmadul di nuyu mbokk yépp di indi ay kàddu yu soññee rek ñun ahlu xidmati mbootaay ndey daara yi jàppoo ngir liggéeyal daara sëñ Abdoulaye Jaxate ak mboolem jëwriñ yi mu àndal ak soxna yu tedd yi toog ñu ngi leen di soññi ci bisub social bu ñuy waajal ci la 11 janvier kër sëñ Touba gi ci Daaru Marnaan ñu ciy soññee ñëpp ñëpp ñoo xam ne ni ay jullit lañ di leen soññ ci bisub alxuraan di leen di ci jiital ci soññee bi ñu ngi ciy woo suñu bàjjen soxna Baali mu sëriñ Muntaxa ak mbokki jullit yëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp ñëpp di leen soññ ñu góorgóorlu jàppale waa alxuraan te xam ne alxuraan moom lu ci waaye def sa bopp nga ko defal te ab denc la bu dul yàqu kon nag ñu ngi soññ mbokki jullit yëpp ak mbokki taal yi ñu jàppale daara yi di ci liggéeyal ngir yàlla benn liggéey gënu koo mag ci ab jullit kon nag ñu ngi ci sooñ ñëpp ñëpp fu fi waay man di nekk ngay tibbal ndongo yi baa nga leen di footal ba bu fekkee ne jàppandiwul tamit ngay fay fóotkat ñu leen di fóotal ku ci dend ak daaraat di ko tibbal loolu lu am solo la kon ñu ngi ciy soññi mbokki julli yëpp suñu rawatina soxna yi. di wax ne ñu ngi leen di woo ci bis boobu yéen ñëpp la 11 janvier di soññi ñëpp te xam ne lu waaye def ci alxuraan rek sa bopp nga ko defal te suñ borom moo wax ci isaa sulsilati fa man yaxmal misqaala saratin xayran yarahu wa man yaxmal misqaala saratin saran yarahu kon nag ñi ngi soññi mbokki julli yëpp na mbokki taalibe yi daayira maam jaara yi maa ngi leen ci soññi ñoom ñëpp ñi ci soññi mbokki julli yëpp rawatina ñi nekk biir Touba ñi ngi leen ci soññ di leen ci woo ci bis boobu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf